waaw xam nga wax ci ci biir ci ci suñu biir waxtaan wax naa la ko nee naa la su ma amul li ma gënal damay jël fi sës parce que aw ma jotu xaar ñi nga xam gis mbër yoo xamante ni bu ñu ñi ñu bëgg bu ñu leen amul dañuy toog xaar waaw mais loolu laa la wax man làmb mooy suma métier ci làmb laay tere pour teral suma njaboot léegi ma war a xaar ku nga xamante ni bëggul bëri ak man demale suba loolu ban njëriñ la ma amal en léegi j'ai préféré ma jël ko nga xamante ni peut-être maa ko raw ci làmb yàlla suñu borom baax na maa ngi nuyu ñu ko tëgg waa Rente DKR Alain maa ngi koy nuyu bu baax a baax grand Pape Sarr xam nga ma leen di nuyu Jumbo ñoom ñëpp maa ngi di char xam nga may nuyu kalmantour de passage aussi tamit di nuyu mbër yëpp waaw di ñaan Sénégal jàmm yàgg fa aussi sa diggante yow Kalmundu noo xam ne parce maa ngi gis am na ci ñoo xamante ni ku ci mel ni papi général na wax yu mu wax sànni la ko parce que yaa njëkk a wax jox ko wax delloo la ba la nag sax na waaj sa diggante yow moom ndax mbokkam la te bokk na ci ñoo xam te dina ko jàppale te yow bu bés baa di nga xam ne ay mbokkam ñoo nañ taxawu Kalmu Ndour. waaw làmb moom xëy ne Pape Général wax rek mu génn mais tey jii képp koy bëreel ay mbokkam dinañ ko jàppale mu samay mbokk dinañ may jàppale Kalmu Ndour ay ñoo koy jàppale loolu moo ne ci làmb mais Pape loolu mu wax noonu man frégew ma de na na na non li ko intéressé la wax ci Kalmu Kalma Ndour lay jàppale bon nañ jàppale Kalma Ndour mais man li ma war ak suma mbokk ak suma ñi ma war a jàppale yàlla tax moo loolu ñu ngi si lu ci nekk moom ak làmb ñoo baaxoo ñoo ànd ay làmb ak coow ñoo ànd quoi. waaw wax ji daal yow dugg la. non mais mënu ma dugg loolu mu duggee may ba teg sama ngéem wax boobu bu fekkee daf ma daf ma daf ma travail wax boobu bu fekkee daf ma travail non jaratul ñi may topp di ma topp. nit génn wax da ngay préparé sama combat bourse li ma dégg mosuma ko dégg pourquoi Bour Sine nooy dégg bool bool bu ñu envoyé audio ne diw mënul wax ba duñ ko dóor mu daanu. yàlla suñu borom gis nga ko yàlla noppi na bu yàgg Pape Général su ma ñëwoon Kalmandour daan ma sax bu mu jàpp ne moom la yàlla moo dogal Kalmandour daan man dongab Cheikh Fall la dongab Cheikh Modou Djidi Fall la aw ma lu may tiit lu may ragal li Pape barki Baye aw ma lu ma ciy ragal loolu frégewu maa ngi ko nuyu de passe sax grand frère la maa ngi koy char mais wax jooju wax dugguma quoi. waaye léegi bu ma ñëwee ci Calme Ndour sa combat yow ak Calme Ndour comme que nangoo décortiquer moom naa pousse looy bàyyi mu jàll sa combat yaa a Ndour. waaw sama combat Calme moom wax dëgg yàlla combat la champion la ndaanaan la. mais eh, man tamit damay ñaan yàlla yàlla may ma dam moom moo ma daax bëree moo ma ëpp gàllaaj moo moo ma def lépp mais ak maa bëri ay mbokk. kan moo wax loolu yow yaa wax loolu wala moom moo wax loolu. dana moo dàq bëre moo ma doole. moo ma dàq xeex moo ma booy mbokk mais ak maa bëree mbokk. fan la teg loolu. am na géwél yoo xam ne nii am na pël yoo xam ay géwél lañ am na séer yoo xam ay géwél lañ te man képp kuy géwél sama mbokk nga waaw bëree mbokk. yaa ngi ñaan yàlla yàlla may ma dem deer incha allah bu soobee yàlla. mais ni ak noonu man ñëw ma la Carmou Ndour man moo ëpp doole. man maa la laaj loolu yow. ndax yow yaam ma laaj loolu noonu ndax man laa waxal la ba xam Carmou Ndour moo ëpp doole non moom moo ko wax man li ma jàpp. man maa la laaj yow yaa Carmou Ndour ëpp doole. lu ma ci xam fi moom moo ko wax moom. non waa léegi man gisuma Calm Ndour man yow laa gis dama ne la yow ak Calm Ndour kon moo ëpp gàllaaj. non man moom ay non yow man gisuma fi Calm Ndour yow laa fi gis Eumeu Sène ñoo laa fi toog. ma d'ailleurs maa ngi nuyu ñi nga xam ne dañ may jàppale te yàlla tax borom daaru xam nga Babacar Oustaz Ale. Calm Ndour daal dégg man Calm Ndour daal Calm Ndour Calm Ndour Calm Ndour am na ay mbokk fa mu toll nii maa ngi wax ay waxi dooleeg waxi mystique. nga fi wër nga fi wër ay borom daaru. borom yi ni may ñaanal te yàlla tax waa Jilaas ñaaxaar maa leen di nuyu bu baax a baax dañ may ñaanal te tax Birame maa lay siyaar Léo lay siyaar xam nga di nuyu gars yi baax a baax ñu wax ne ñu xaram tu dafa bëri gàllaaj te xam nga dafa pare pour nagam loo ma yàlla bu loolu antu ama seen union daal fi mu toll nii ay mbokkam lay wër xam naa dañ koo xeer nag suñu borom daa dogal xaram ndur wax na lépp nee na moo ma doole moom dàq bëri moo ëpp du ma wër sama mbokk loo koy wax à travers Wassare Lamb waaw ñaanal ko jàmm di ko ñaanal sama bopp xam nga ba le jour yàlla affaire yi am ak jàmm date bi xam nga ñu ñëw maak moom neexal bëre mu daanu si jàmm dem ñibbiwaat si jàmm prochain combat xam nga mooy loolu.